yoon wi lii rekk la laaj te daaru salaam lii rekk lañ xam mooy la maam Cheikh defoon ak Serigne Touba mooy jox ko léppam moo tax bi Serigne Touba ñëwee ñu dagg jataay bi sëriñ bi jóg ngir dalal ko ndax mooy boroom jataay bi bu doon ne fu nit dëkk yaa fay amee kayit. sëriñ Modou Mamoun waxoon na sëñ Fallou na ko yow kat boo bëggee dentité da ngay dem Daaru Salaam ndax fa nga juddoo man su ma bëggee dentité damay ñëw tuubaa ndax fi laa juddoo kon yaakaar naa ne dëkk bi sëriñ Modou Mamoun moom Cheikh Mamadou Fadal am na fi wàccuwaay bu rëy te fi la jànge alxuraan di boroom xam-xam nag bu mag waaye ngir njëkkante ak waxtu wi ak gàttal eh, dem le ministre di soxna Ndeye Marème Badiane di sëtub maam Cheikh ndax sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar wóotu na maam Cheikh fii di boroom gaawaan ñépp topp ci ginnaawam kon boo fi ñëwee yaag ñi nga àndal rawatina monsieur le gouverneur nga xam ne lii mooy màggalam gu njëkk dama ciy bañ a dugg waaye bokk yi daan ci ñëw ci ay taxawaayam danañ leen xamal dëkk bi mooy ban ak màggal gii mooy gan màggal màggalu Daaru Salaam mooy màggal goo xam ne bu amutoon genn màggal du am genn du am ndax li tax bu amutoon genn màggal am mooy bu Sëriñ Tubaa del siwutan murit yi duñ màggal te baatub màggal ci murit lañ ko déggee bu Sëriñ Tubaa ñibbi siwutoon màggal du am te jëmmi màggal Sëriñ Tubaa moo ko njëkk a tudd ci àdduna gàmmu lañ xamoon kero bi Sëriñ Tubaa santaane màggaluk Tubaa ñu tuddee ko ak tabaskiwaat Serigne Touba nee na loolu bidaa la te man duma dund ci bidaa ñu ne kon nuñ koy tuddee mu ne tudd leen ko màggal baatu màggal kon ci Serigne Touba lañ ko tuddee moo tax mu wax ne gàmm gi nit ñi doon def mu ne fa man yu xassim mawlida ku màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba nag ni ma la waxee ne 1895 ba 1903. ñi ko yaakaar kenn ku mas a toog ak xel mu dal amut ku mas a toog fi barab ànd ak jàmm amut sëriñ tubaab it mus sa toog foo xam ne ci sagos boppam la fa nekke ci loxoy tubaab yi la ne nekk diggante Mayomba ak Lambaréné ak ay yi ak ay dëkk yu boo xam ne ña fa nekk déggante wutoog ñoom aw làng te Gabon kenn nattabliwut ne bañ fa yóbbu sëñ tubaa barabu deewukaay rek la woon du woon barabu leneen barabu deewukaay la woon ndax booba Gabon am na ay xeeti godd yoo xam ne ku ñu mat da nelaw ba faatu dangay nelaw ba faatu dafa fa godd yooyu gënoon a bari fa lañ daan yóbbu Serigne Touba ñu ko fa yóbbu woon ñu doon bañ tànt bu mel nii am ñoo ko fa yóbbu woon bi ñu yóbboo Serigne Touba nag ba 1901 maam Cheikh jóge fii ci senegal dem fekk sëriñ tubaa Gabon foofee gudd na waaye man mel nu maam moo njëkk a déplacé wu wala menn moom képp moo jóge ci fii dem fekk sëriñ Touba Gabon foofee nag la ko sëñ Touba waxee lii may bëgg a wax ci lay tëje mooy li waral màggalub Daaru Salaam Serigne Touba dafa bind ak xaside wax ci ne lahu taala rujuhi min idaaya ila daari salaami allati tubna bi tajdidi loolu du lu maam Cheikh Anta wax du lu kenn wax Serigne Touba moo ko waxal boppam yàlla bi ma fi jële woon yóbbu ma mooy aji kawe ji dana dogalaat sama delluwaat jóge ci noon yi bu ma jógee ci noon yi fan laay delluwaat daaru salaam ga nga xam ne maa ko sancoon su ma fa demee danaa ko yeesalaat tubb naa bi taj diidi naa ko yeesalaat ci ay tabax kon ñibbi sig sëñ tubaa moo ko njëkk a annoncé boppam waaye wane ne bu ma ñëwee daaru salaam laa jëm moo ko annoncé mu waxaat ci baat bu am solo ba tax ne màggal gi lu ci waay fas am ko bi muy dem ku tukki da yóbbu sëriñ ku tukki da nga yóbbu sëriñ suñ borom ne ko lan nga bëgg a yóbbaale ab sëri ca réew ma ca réew ma mu ne ko kon kay ginnaaw damay delluwaat te mënuma ñàkk yóbbu sëri ca te mënumaa séddale àdduna bépp ñu am sëri ca defal su ma delluwaatee ci réew ma ijhal rujuhi ila xawmi saadatana wal takfina yow ma jamhil xalqi defal sama delluwaat gii ma jëm ci réew ma su ma àggee na doon seenug texe bu ci kenn dem sa wara boobu sëri ca moo gën a daj ci lislaam moo gën a daj ci àdduna bi sëriñ Tuubaa it dellu ñaan li ngeen di ñaan monsieur le ministre te waxtu wu ne kër gu ngeen dem ñaan ñaanlu ko fa fii la ko Serigne tubaa ñaane woon kon bu ngeen ko fi ñaanee mën naa am ci àdduna bi rawatina fii nawet bi toll ba ñëpp jàq Serigne tubaa fii la waxoon ne ijhal salaamatan taduumu yaa salaam liya walil iyaali fi daari salaam yow yàlla nag ma defal jàmm ju sax dakk ci sama dëkk bee di daaru salaam waaye ak njaboot gay ñëw daaru salaam nag te nekkal ma fa kon yaakaar naa ne barab a ngi nii boo xam ne bu dut moom amut màggalug daaru salaam nag moo mag ci yoonu murit ci ab daje ci ab daje ganeen màggal gu mën a doon ginnaaw màggalug daaru salaam la 1903 bi sëñ Touba ñëwee fii bi mu jógee ci géej gi 1902 jaar ndar def décharge ndax booba capitalu Sénégal ndar la ne bi mu jógee ndar la jaar njeng jaw kër sëñ Galaay jaw jóge fa jaar sànnoosi ba mu fa jógee la jaar Makka Baabu jóge fa jaar kokki jóge kokki jaar ñaxar caafura ba mu fa jógee la jaar kër Maxtaar Binta Fall ba mu fa jógee nag la dëgmal Daaru Salaam fii mu ngi fi ñëw waxtu fajar fekk maam Cheikh julli jot sëñ Touba julli julli fajar ba noppi maam Cheikh Anta ganale ko fi ngan goo xam ne kenn mësu ko bokk na ci historique yu ngan ga mooy bi sëñ tubaa di ñëw fii ci fajar dafa fekk booba kër gi di ay seng ak ay sàkket te maam Cheikh Anta nee na sëñ du teg bëtam ci aw sàkket wala ay seng mu yónnee ci benn bitik bu nekk fii ab tubaab mu jox ko mbooleem piis yu mu jëndoon muy piis yi mayluus ak yooyu bassin ak yooyu ber mu wodde ko wala boog mu sakk wër muure ko mbooleem sakk yi yi ak sakket yi moo tax sañ Moussa Ka di wax naan ay piis la wodde taax ma Bamba wàccoon biir ak biteeg mat la ya bur ya sàkkoon kon lépp luy xeete xayte maam Cheikh ko njëkk def ci àdduna bi fii la sëñ Touba njëkk a toog ak njabootam wër ko sëñ Fallou bindu kaamil sëñ Modou Moustapha bindub kaamil sëñ maam na ñëw maam Cheikh Anta toog sëñ sàmba maam Cheikh Rahma Fall sëñ Issa Dieng ñoom ñëpp ñu yendoo nekk ci bernde maam Cheikh Anta rey ay nag rey ay gëléem rey ay xar berndeel leen ba ngoon jot def na wax na def naa ko ngir jëmmi yàlla. fii la histoire Sénégal yow sëñ Alioune Dia boo ko dégloo la ko tàmbalee ci yonent yàlla Ibrahim keroog ba ko suñu borom digalee ngir mu tër Ismaïl ngir di nattu ak ngëmam yàlla fu mu toll mu tër Ismaïl ngir bëgg koo rendi suñ borom jote ko xarum tabaski ba tax bu agsee ñépp yi tabaski ginnaaw yonent yàlla ibrahima ak ismail mësuñoo gisaat ku tër nit ngir jëmmi yàlla ku dut maam Cheikh fii la maam Cheikh Anta woon tëre ku ñu wax Modou kamara ne danaa ko roy defal ko sëñ Bamba ci bisam bi ngir bëggee ko ne ko ndax sëñ jar lépp loolu la maam Cheikh Anta sëñ Touba tiri na ko Cheikh nit ëpp naa rey mu fab koo ko jébbal ko Maam Mor Jaara borom saam muy Modou kamara ñu dem nekk ma kër Maam Mor Jaara kon maam Cheikh lépp lu ñuy terale sëñ Touba def na ko bis boobu nag ci lañ yendu tey di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lu fi waay bëgg te ñaan ko fi yal na la ko yàlla defal yal na yàlla def jàmm ci réew mi nañu yàlla gàttandoo ak ndox mu bari te barkeel yal na yàlla dëppale xol yi yal yàlla may jàmm senegal gépp te may ko Afrique may ko àdduna bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alxuraan nag la mu nu dénk te jàngal ñu ko aw foo bil ahadi innal ahada kaana an u masula danu fu nu war a toll di mottali sunuy kóllëre te di ko feddali ndax ëllëg kóllëre yàlla daf nu koy laaj moo waral màggalug daaru salaam gi jamono buy ñëw fekk na nun xam nañ bés bi yittewoo ko yit ba mu boobaa duñ dem ci lenn duñ waxi lenn lu du ci bés ba la ñuy ñëw lu ñuy wax wax ko ci kon sëriñ bi noo ngi yëkkati nuyoo bi di ko teg ci sa loxo maam Cheikh Anta yàlla na fi yàgg lool te nga tegal ko ci loxo xalifa bi tegal ñu ko ci njaboot gi yépp képp koo xam ne kii rek soxee nga ci maam Anta yàlla na yàlla dolli ay leeram noo ngi lay nuyu noo ngi lay sargal noo ngi lay ndokkeel ci màggal gi di nuyu bépp doomu soxna boo xam ne nekk nga fi waaye di nuyu it sunu mbokkum bopp ndax noo ko bokk ca jolof muy sëñ Modou Mamour bu sëñ Falilu bii dugg léegi di it kóllëre bu yàgg nu di ko tiitaroo it bu baax déglu naa ko ci kastu rajab bii weesu nu dénku ko taarixu kastul rajab bi mu waxtaan ca waxtaan wu yéeme ci arxa arab bu wér waaye leeral ko itam ci lu gàtt ci wolof ba ku ne dégg ko waaye nun jaaxalulu ndax jàpp naa ne nangami at ca gannaaw daje nañoo moom ca Maroc ci duruusul xasaniya bi nga xam ne Hassan II moo ko daan def ba jóge fi doomam di ko def booba kilifa diide yëpp ku nekk yebal nga fa sa doom waaye lañ fa doon wax ca jamono boobee moom mii lañ ko dénkoon mu defee ko defeet woo xam ne kenn ku ne ba mu paree da nga caa gis ne doomu soxlaa rek doyut waaye jàng gën a wóor maa ngi nuyu ñëpp képp ku fi de di feddali it suñu kóllëre ak maam Cheikh dama ko fee waxoon nangami at ca gannaaw la léeg-léeg fàllu galas mii di ko nettali ne képp ku lay organiser lu jox la bésam nga dawal ren ba déwante wonoo ko ku bees ci mbooloo mi bu yeboo mu nangu ko te xam ne mënoo waaye lii day bañ ko dénkee maam Cheikh ak léegi at mu jot boo ñëwee ne nii mu demee musu koo demee ni mu mel musu koo mel man nag yàllaa ma suturaal sëñ Saaliwu Mbàkke yàlla na yàlla dolli ay leeram moo ma boole woon ak moom mii loxoom ak sama loxo ak loxo sëriñ bi ba fu ma masaa soxlaa sëriñ bi su ma ko jotee alaaji fàllu faal bu bàyyi ma yoro maag alaaji ànd ñëw dama naan ko bés sàngam rek laa bëgg a ñëw ci sëriñ bi waaye gannaaw ga mu ne ma sëriñ bi nee na amatuloo bés ci moom amatuloo waxtu waxtu woo soxlaa mbaa bés boo bëgg a ñëw ñëwal moom mii nag mu taxaw ca taxaw bu wér muy maam cheikh bi jant bu mbëllëxe amee gàmmu it sëñ Saaliw defar délégation jël ay teraangaam yëkkati ko teg ko ci loxo moom mi mu indi ko léeg-léegi sëriñ bi soxla euh, yëy nañu ndam ndax ki nga xam ne mi ngi ne ngéej nga woo ko te boo ko wooxee mu ñëw boo ko yónnee ndaw ndaw lu toll ni maam Cheikh kooka bëgg nga ko yéy na ndam rek léeg-léeg sëñ Saaliw am yi mu soxla wala lu muy wax daal di woolu ko moom mi ba mu ñëw mu ne ko boo demee na ko jox sama doom jete joxal ma ko sëñ Aliou Ndiané ko nangam ak nangam ak nangam ñëwee ma ne ko daal sëñ bi daal gannaaw maa ngi ne woon ngéej man mu woo ma te bu ma wooxoo nit ma ñëw buy la yëkkatee yow kii nga toll ca daaru salaam yónni la ci man mii de dafa bëgg rek xanaa bëggal ma ndam te ku ko déggit xam ne am na fu mu wéeru kon nag maam Cheikh ñu ngi lay feddaliwaat sunu kóllëre di la ñaanal lii ngay organiser yàlla nga fi yàgg lool xalifa yi fi jaar nga ànd ak ñoom te bokk ko kenn ku ci ne xam nañ nam la doyloo woon xalifa bii fi nekk gis nañ ni mu la doyloo mbir nag boo ca bokkee luñ la ca jox dalay lay doy soo ca bañ a yàq waaye la nga bokk nag teel caa dugg te xam ne ca nga bokkit dana dimbale doomu aadama abdul mutalib bàyyi la ci yonent bi bi rasulullaay di dugg ci ay loxoom juróom-ñetti at la am waaye ba mu duggee ci juróom-ñetti at ci loxoy abdul mutalib abdul mutalib yor na yonent bi nekk ak moom ñeent fukki at yu tegal juróom-ñeent ak juróom-ñetti weer ak fukki fan ak benn waaye bi mu demee ba toll ci xar-xarle waaye la taxoon rasul lay yor jóg la taxoon yoon la ne ko yaay yonent bi dugg ca jëriñuwu ca te àggoon na ci rek mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dal di rasululay garantil ko aljaddaam waaye gannaaw lay pas-pas te joxoon ko yonent bi la muy doon doon bayam yor ko 49 ans yu tegal 8 mois 11 jours nekku ca rasululay la mu mën a wax rek mooy gëm nga ne day diine ju gën sama diina jii ma indi wàccu fi waaye nag duggoo ci mënu ko caa jariñ dara kon nit la mu bokk na ko xam nit la mu bokk na ko téye nit la mu bokk na ko fonk nit la mu bokk na wax lu ko defar lu ta indi jàmm te téyel ko boppam kon nag daaru salaam gii dey royuwaay la ci réew mi yéen ñi ko yore di ko doxal nit ñaa ngi leen nawloo bu baax ndax la maam ta Anta la woon maam sëñ Touba ku dem ca barab bee nuy dalal doobu soxna yi man maa ngi fa am néeg at mu jot bu màggal gi ñëwee dana xam ne yéen lañ leen dénkoon yéen a nga ci ndax bañ leen ko dénkee daaw wala daaw jéeg defar ngeen ko defareen woo xam ne wii na ko sëriñ bi bëggee woon matale ngeen ko te ak léegi lu ñu santaana ci kër sëñ Touba kenn mëtu leen mënu leen ci yàlla na loolu sax yàlla na loolu yàgg maa ngi nuyu nag soxna Mariam Badiane di ministre d'État di ko baax du ko ràññee ma di ko fekk ci président de la république te xamit cër bi ko président jox ak ni mu ko fonkee ay waxam néew lool te muy nit ku gore maa ngi nuy également le gouverneur de la région di ku baax semaine bii képp wër naa def benn commission boo xam ne région yi daanaka Sénégal def naa ko doon toppatoo fu joxim jiw toll fu matériel agricole toll waaye bi ma ñëwee moom mii day ba jaar ci biroom xam naa ne ku réew mi ñor la te ku xam fu askan wi jëm la kon yàlla ko yàlla dalal jàmm ci région de Diourbel te taxawu ko waaye am na ñu yaakaar ci moom bu baax yàlla ko yàlla dimbali di Euh, euh, moom ndaw ko ndaa gi rek ma ci jaaxal waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit la koo xam ne kiit ku am taxawaay la maa ngi baalu àq ñëpp di seddaliwaat rek suñuy kóllëre ak dëkk bi ngeen xam ne fii daal fu nu ne suñu xel a ngi lu fi xew di jàmm buñ sañoon mu yokk lu fuy dëgmal nar a lor yàlla mu fi agsi cër bi nga xam ne moom la maam Cheikh amoon démbit nag fa tabaarakallaahu ngeen téye ko téyin woo xam ne ku ku xam ne kii cosaanoo rek naw na leen damay def léeg-léeg may dem booru Touba di wër tool yi waaye léeg-léeg bu ma egsee ba jub tool mu yaatu lool ma ne waaw ku moom lii nga ne ma kii day sëtu maam a koy bay ma ne waaw lii day war ta njombe kon su ko defee taxawaay yi moom ci biir ak ci bitti lépp rafet na kon nag maam Cheikh ñu ngi lay feddaliwaare daal suñu kóllëre te xam ne daal jàppal moom muy guddi muy bëccëg loo ne daal ña nga ca te xam naa ne ci njub rek ak teraanga ak lu baax nga ne loo ne loo dégg lu ca it la nga ca bëgg rek danañ ko ca def bu nu jàppee mu baax nga ne jàppal du gën a jàpp soo ne jàpp naa ne loolu itam day bu ngeen defoon ne neen ñu def ko ndax sa xel doy nu sa yéy na ci ñu rëy na xam nañu itam say ñaan fu mu toll waaye li ko fàllu galas waxee man du ma toog ci jataay ba jeex te waxuma waxi nawet na ñaanal nawet bi yàlla mottali koog na ñu naan yéex na nag waaye yàlla kenn du ko dab kenn du ko xaar koo xamul fu mu ne danga koy béyee boppam waaye léeg-léeg nga gis ko nawet bi yéex na déet nga gis koo xam ne kii ma ngi naan ah xoy yi nee nañoo météo nee nañu xoy ak météo dañuy dàkk te yàlla kenn du ko dàkk yàlla danga koy néeg rek te yàlla mi fi newoon nag ci jamonoy maam Ibrahima makka ndox tëfa mu dem ba wàcce fam sam-sam sam-sam moom mën naa wàcce ndox bu ko gën a barkeel wala mu mel ni moom ci réew mi ku ci róojoon daal rek sa jiw bu ko wàññi bu tawee jixal mu ne mu ne ŋàpp teel a la bay te nga béyee sa bopp yàlla waaye nañ wàññiw jiw dafa cate wóorut wóorut ji na yaatu bay leen yàlla mooy taw yàlla mooy saxal yàlla mooy ñoral yàlla moo man nag dana taw ndax yàlla bi fi newoon kat maam Ibrahima yàlla jeexalu tëlewut te indi ñu fi pour alak ñu yàlla daf ñu fay indi jàppale nu yàlla daf ñu fay indi pour yërëm ñu kon dey man jàpp naa ne lu ci waay di wàññi lebal ma ko rek ma bay bu déwénee bu ñu ree ma fay la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallah borom mbëlëxëy jërëjëf Serigne Aliou Dia. Serigne Modou Ndiaye Diop Alhaji Modou Ndiaye Diop mi nga xamante ne moom lañ tuddee woon conférence bi ren njabootam taxaw taxawaay ji rafet rafet rafet te xam ne ñun ñoo ci bokk yem rek ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di gis niñ taxawee taxawaay bi rafet na bokk yee ngi leen sant cant goo xamante ne xamuñ fu mën a yem. di santit waa kër Alaaji Mayoro Fall bi ñu dénkee liggéey bi ba léegi ñoom fii ñuy defee barab bi muy logistique yi baas yi baax yi ak yi ci yi mu laaj yépp ci jëfandikaay ba nit ñi mën fee toog. toogaay boo xam dana xaw a jàppandi tuuti ndax xam nañ ne ay kilifa yu mag lañ fi dajale ay ministre ak i sëriñ ak ay kilifa yu mag boo leen dajale fenn war nga leen a jéem a def le minimum possible pour seen confort ñoom nag ñoo koy sasoo depuis foog naa juróomi at ci ren wala ñeenti at ci ren kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom yokk seen i xéewal ba li ñu bëgg liggéey lépp ñu mën koo def sëriñ bi ñu ngi santit xam naa loolu dañ la koy bàyyee da nga ci àgg muy maire bi di Abdou Mbacké Ndaw bi ñuy def CRD bi jël na ci engagement ñu ngi koy sant ak gouverneur ak euh, ministre soxna Mariam Badiane ak ñoom ñëpp xam naa ne kàddu yooyu moom yow danga ci ñëw sa kàddu lay doon waaye rek ma sànni ci kàddu yu ndaw di la leeral ne sëñ bi de xam naa ñàkkul yaa ngi dégg crise yi nga xamante ni moo am ci dëkk bi muy crise de valeur waaye yow de sa njaboot foog naa ne doo bari loo leen ciy dégg ndax dañoo jiital li nga xamante ne moom la sëñ Touba digle li ñu sëñ Touba digal mooy yaa ayuha sibyaanu la tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil ifsi wa tilaawa wajtanibu majalisa saxawa ñoom da ci loolu lañ nekk ndax xam nañ ne crise internet yi nga xamante ne àddina bi léegi mel ni penc la moo xamante ne boo toogee fii di wax waa Amérique waa Jidda waa Arabie Saoudite waa Qatar réew mu nekk ña nga fa toog jàkkaarloog yow foog naa ne bu fekkee da ngay wax te seetluwoo li ngay wax wala ngay def te seetluwoo li ngay def wala xàmmewoo mën naa andi ay fitna loolu tax na nag ñoom de yàlla def na ay ndaw lañ waaye ñoom ñëpp xam-xam lañ yittewoo ñoom ñëpp ak bokk lañ yittewoo te dégg nañ bu baax itam li Sëriñ Tuubaa di wax naan wala ko xàqan wal xalilu si dëxa an daru li kulli xalilin xaqaa nee na mbokk dëgg ak xarit dëgg-dëgg lépp luy néew looloo ci gën a néew waaye ñoom ñi de ñu ngi def li nga xam moom la sëñ Tuubaa digaloon ci nit ak mbokkam ci lu baax ci wax lu rafet ci ginnaaw nit sutural seen biir bëgg lu baax loolu lañ mën a seere ndax loolu lañ xam ci ñoom jamono nag Cheikh Saliou mu baax mi daana wax ne sunu boroom suy tudd sikki jaamam de jéggal ko rek la ci namm waaye doomu aadama nag su sikk tudd sikk moromam doomu aadamaam weer ko rek la ci nam ñoom de man xawma leen ci loolu yaa ñu boole de ñu ànd di liggéey waaye fu ñu toll ku ci nekk sa moroom lu baax nga koy waxal lu rafet nga koy yéene te moom nga koy seddal ci ginnaawam kon nag sëñ bi man maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ci sa ci sa tur ak ci turu njabootu maam Seex gépp te di leen ñaanal ñu dajeek ngërëmul sëriñ bi ci li ñuy def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 waaye def naa ne bu ñu tuddee njabootug sëñ alaay euh, euh, maam Cheikh Anta mi tudd sëñ gaawaan gépp sët doom yeeg taalib yeeg yëpp ndax mooy jawriñ ji dañuy sant bu baax a baax ci li fekkee lii nag ndax euh, ni ma ko waxee fii de màggal goo xam ne sëriñ Fallou Galas tënk na ko sëriñ Alioune Dia rek lañ ma sa gisee ku Tuubaa bi coppati yóbbu nañu ne lay sànki nga dellu si di dund soo xuloo amoo ligit bàyyi woon nga doon wax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 sëriñ bi mi ngi sant bu baax itam mboolem bokki taalibe yi ñaan suñu borom yokk seen i xéewal nangu seenub liggéey mu ngi dellu di santaat itam képp ku askanoo ci borom gaawaan ci seenu taxawaay ci kër gi ak seenub rafetal ci njiital sëriñ jiiri mbàkke ñuy ñaanal sëriñ jiiri moom itam daal na ko suñu borom yàggal te may ko wér mu ngi def kem kàttanam ci kër gi ngir kër gi nekk benn benn la waaye mu gën a nekk benn te sax lépp luy taaral kër gi itam mu ngi ci guddi ak bëccëg yàlla na ko yàlla defal ndam te noonu rek la ndax ab bokk du dara lu bokk lu ñu mënul a séddoo la ñu mënoon a séddoo ba ñu miraasee la ku nekk jëloon ak cëram li ci des lu ñuy rafetal la kenn mënu koo séddoo sëriñ bi nag di ñaan te bëgg lépp lu koy xajamal ñu moytu ko ya koy xajamal nag dara jiituwu ca ñàkk a nawloo sa mbokk mbokk des koy nawloo mën nga pële say bokk waaye gën leen nag yombul ñu bañ a mel ni ñuy alxuraan di wax taxsibuhum jamian waaye waxuloobuhum satte suñu dajee ku nekk mel ni kuy bëgg a far sa morom te suñu tàqali ko ku nekk nekk ci sa deru morom loolu du jikkoy jullit sama mag ju baax nag di sama xarit alaaji maam Cerno Mbàkke mas naa koo seeti daarul manaan ma dégg mu wax wax ju am solo mu ne nun de noo ngi fii ku ne nu yaa ngi ñëw ñu teeru la soo xagsee ñu teral la soo nu wanee gannaaw ñu ñoŋal sab der mbokk mooy defal ni cofeel mooy dox seen diggante te yëf yi nag sunu mbir la ñun ñëpp te mbir su fekkee ne mën ngaa xëy bés nekk njiit la lu koy jëme kanam kenn waru la caa ba ca des ci luy defaru bokk mooy sa mbokk soo amee aajo tangatane ko ca taxaw ca balaa mu la koy wax xamal ne wërsëg wu yaatu wi la sunu borom jox te xañ ko ko wàllam mi ngi ci biir fa aati sal bi àq wala alxuraan wax waaye di seetaan sa mbokk ci soxlaam yu mu munta faj ngay may ku la naan sama ma jur sa baay téeméeri ju nekk bi yëpp màkk kooku lu xajam seen diggante yaa ko def ak bokk ku ko xajamal dajeeg sunu borom sunu borom fa aslimoo la wax ci aaya ba kon farata la sëriñ bi mu ngi leen di fàttali yéen ñi mu bokkal kër gi te yéen itam mbooloo topp seen gannaaw ngeen di fàttali mbooloo mi ragal yàlla ak jaamu yàlla te roye ko ci sunna sayyiduna Muhammad ak njàngalem sëriñ Touba da ngeen xam ne mbooloo mi ay taalibe lañu naam waaye seeni nawla lañu ndax am na ci taalibe yoo xam ne yéen a bokk bokk gi genn la kon suñu wëlbati ko jébbalu ci yow Serigne Touba tax waaye du sa jëmm kon seeni naw la nañu sam law na nag war ngaa farlu ba du dégg du gis ci yow genn matadi ki topp ci yow di xaar nga summi say dàll mu jëlalu ko waroo yeex ba mu di la jiitu waxin la te kenn mënul defit lu ump taalibe yi boroomi xel lañu dara ump leen te li sëggal jëmm sëggalul am xel te ku sañoon ka nga sukk jébbul doo dégg ci moom ab safaan waxuma laa di ko gis taalibe bi taalibe bi jébbul ci yow yaakaar la àdduna ak alaxara te su amee soxla su ne këtt ne jonn mu dem ci sab nawle di ko ko ñaanloo bàyyi la fa su sañoon su la njëkkee génn adduna sab nawle taxaw ko te yaay sëriñam yow la yaakaar loolu gàcce la te sama maas gii nag mbooloo mi topp ci nun ñu ci bari suñu sañoon ñu génnee adduna keneen taxawu leen la koy waral ragal yàlla bu ñu gis ca te gisuñu ko ci yow sëriñ bi nag duñu fàttali loolu bëgg nu bàyyi ko xel ba loolu duñu dal ndax yëf yi du nguur yëf yi diine la ñu ngi dellu nag di jaral Cheikh du Mountakha seetlu nañu ne bi mu toogagul ak bi mu toogee ñooyam yitteem jenn la mooy sàmm ndonol sëriñ Touba ndonol sëriñ du dara lu may diine lislaam mi ngi koy sàmm ba kenn du jaar ci moom ruur tool bi te loolu nun jullit ñëpp la war damay wax ne nag wi ñun ñëppay naan ci soow mi kon ñun ñëpp a ko war a sàmm wala ku ko munta sàmm foo gis ñax mu bari wax ko sàmm bi mu yóbbu ko fa ndax ndax soo mu yokk waaye sama maas gi defee ne seen mérite mooy li ñu bokk ak sëriñ tubaa waaye jikkoy sëriñ tubaa seen yoon nekku ci ñiy wax kàddu yu ñagas jëmale ko ci yoon wi ñooñu la ñuy waxal waaye waxuñu ak sëriñ Touba Serigne tubaa kenn mënu koo jam waaye ñu bëgg ñu jox leen cër bi ñu jox Serigne Touba te duñu meloo meloo Serigne Touba ñooñu la waxal tere yi ñu Serigne Mouhamadou Mountakha di fàttali itam ñëpp ci war a taxaw ndax tere yi ci yi ci nekk yëpp alxuraan wàcc na di ko tere wala hadiisu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kon sëriñ bi daf na ko fàttali rek ndax fàttali farata la sëriñ Touba nag sama maas gu yaafus gii soo leen di nettali karaamay sëriñ Touba yem ca bañ a nettali jikko yi dañuy amul lay dañuy defee ne la cay seen wàll mooy fettasu ak daanub jël danga leen di wax sëriñ Touba mi nga xam ne jikko kenn dabu ko ja ragal yàlla ga wakkiilu ci boromam mën a muñ ga jom ja maandu ko ak nawloo ay bokkam loolu sunu borom def na jikko yi ci képp ku mu bind mu ngi sa biir sa yitte rek moo koy feeñal nag Sëriñ Tuubaa nag leeralal nañu lu bari ba leeralal nañu cër bi mu am diggam ak boromam ni mu ko amee wax ne karaamati xattu yadd yi wax ne lépp lu ñuy yéem ci man maa ngi ko amee ci mbind mi may bind ci sama loxool ndeyjoor di ci bàkk sunu borom di ci tagg Sayyiduna Muhammad kon yoon waa ko ku ko mënul na ma ko mën a war itam war a mën a jeex jéem a xam li mbind mi firi tax di ko jëfe Sëriñ Tuubaa nag digale nanu nu ragal ñett noonu na nanu ragal yàlla ragal ku ragal yàlla waaye ragal ku ragalul yàlla Sëriñ Tuubaa itam dafay wax ne mbiram lënt nekku ci benn bëgg-bëgg la amoon muy lislaam lislaam nag ab tool la jullit bu nekk am ko ci aw sas ku bay saw sas ba mu set borom bi digg na la lu la jomb loo xam ne kenn amu ko ku dul moom muy aljanna taal jane misaal na ko ci alxuraan wax sayyiduna Muhammad ne ko wa sa rayta sàmma rayta naximan wa mulkan kabira soo gisan foofee da nga gis xéewal ak nguur gu kawe wa fiha ma tastahi al anfusu wa talasul ahyunu wa antum fiha xaalidun lépp lu neex ci bakkan rafet ci bët ma nga fa te ku dugg da nga fay sax sahaaba yi ridwanullahi alayhim yonente bi sallallahu alayhi a xamaloon na leen ko ba tax seen dund gépp ñu jeexaloon ko ci bay seenu sas ci tool bi ñu ca bari gudd ñu fan waaye faral nañu ba seenu sas set wecc kenn ci ñoom ñu doon ko wax Saadu ibnu Maas radiallahu anhu wax nañu ne fanweeri at ak juróom wala juróom-benn dund ci àdduna te fanweeri at yëpp ci kéefar la ko nekk waaye juróom wala juróom-benn at yi mu dugg ci lislaam ànd ko ak Seydina Muhammad ba mu faatoo yonent bi saa sam ne nag aras yëngu na ngeen di ko sabbal juróom-ñaar fukki junni malaayka ñoo ko doon gàttandu di ko gunge te ba ñuy gas bàmmeel ba xetu misk moo ci leen génn daraja yu rëy yi sax du mi ngi ko am ci juróom wala juróom-benn at ci lislaam loolu farlu moo koy maye waaye du aw sant ak askan ndax sax saxdu moom mi aboo lahab moo ko gën a jege yonante bi fuuf ci bokk te ma nga safara kon aljanna li man doon walaw habdan habasiyan waaye wanaaru li man xasaa walaw sarifan xurasiya ajjana ñeel képp ku topp yàlla donte jàmm bu dëkk abas la waaye safara ñeel képp ku may yàlla donte sërif la bu bokk ci xurays waaye ku sas sas booy ci tool bi suñ borom tëkku na la te soo dajee moom di nga xam ne attinoo dara ci la muy teg ku ko moy suñ borom dafa wax la in massathum nafatun min hasaabi rabbika la yaquluna yaa waylana inna kunna zalimin nee na la gën a woyof ci sama mbugal ku ma ko teg nee na di nga ba fa sa baat yem ne nun danoo bokkoon ci tooñkat yi te sunu borom tudd na ñaari kullama la mu ca teg daw ko jar na bañ a mooy sunu borom sunu borom dafa wax ne kullama nadijat juluudum baddal na hum juluudan xayra li yasawxal xasib xasaab nee na ñay tàbbi safara ëllëg yàlla na ci yàlla musal sa yaram bi nga yore fii ci àdduna nga xam ne attanul tàngooru jant bi su tàngee doo mën a dox ci suuf te solooy dàll la ñuy sóob ca jaxanama te di ko yeesal saabu lakkee ba jeex te ne jaxanama du gémm kullama xabat sitnaahum sayra loolu topp sa bakkan jëru ko bëgg daraja euh, jëru ko bëgg àdduna jëru ko bëgg ñu nit ñi teg la fee nit jëru ko mu ne suñu tollee foofee ñoom di réccu di wax sunu borom ne ko te réccu ko ne du am njëriñ borom bi nee na yéen Seydina Mohamed walaw tare is waxi foo alaale bi nee na soo leen gisoon ñoom tooñkat yi keroog ba ñu taxawee fi kanam borom nee na sunu borom xaala sunu borom ne leen alaysa xasaabil xaq nee na mu mu joxañ leen safara neen ndax lii du dëgg xaalo ñoom ñëpp ñu maase na balee wa rabbina nee na tuuri sunu borom yi bari na lool waaye keroog rabbana rek lañ koy wooyee dañuy nangu nguuram gi moom dong nangu na moo leen moom moom dong te dañ ko doon bokkale fii ci àdduna su borom bi waxee ak ñoom seen tontu mooy balee du ñu ne naxam ndax balee moo ko a wér ak nangu naam moo tax sunu borom nee na ku ko bokkale fii ci àdduna yomal xiyam da nga ko miim dafa dul am xa dafa dul am dafa dul njariñ nag ndax wa yowmal xiyaamati yakfuruuna bi sirkum te ne lay xew foofu mu yowmal xiyaam ku leen ko xibaar ku dul man sunu borom nee na am na fa lu ko fa ump wala yu nabbiyu ko mislu xabiir moo tax sunu sëriñ sëriñ Tuubaa dafa wax ne say mooy yàlla tollale ko diir ba ngay mën a muñ ci safara suñu dafa soobee wax ma li naari lay xadra sabrika xalasti daaril xarri an law tusraka sas wi nu borom sunu borom sas nag ci tool bi yaatuwul ñax mi bariwul te mooy gëm yàlla ak jëf rafet sunu borom ne ne inna allazina amanu wa amilu saalaati ulaayka hum xayrul bariya nee na ñi nga xam ne gëm nañu yàlla tey jëf lu rafet ñoo gën ci bindeef yi ak fu mën a bokk nag nee na ñoo ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla la tey jëf lu rafet kaanat lahum jannaatu firdawsi nusula nee na àjjana firdawsi mooy nekk seen wàccuwaay ëllëg nee na ñu mel ni di gëm yàlla tey jëf lu rafet lahum waajurun xayru noonu dañ leen di fay fii ci àdduna di leen fay fële ci ëllëg ci àllaaxira lu doomu aadama yokk ca saso nag mu booy ndax ña boole woon xir ak ba yokk ca raxbaan ya muy làbbewu borom bi nee na farataalu ma ko ci ñoom waaye mënuñu ko sàmm dëgg-dëgg sàmm famaarawa aqari haayatiha kenn mënut am ngërëmal suñu borom ci loo xam ne yaa ko sosal sa bopp di ko jaamu yàlla ngërëmal suñu borom ñu ngi ko am ci li leen suñu borom digal te bari na lu nit di jëf nga laaj ko lu tax mu ne damaa gis ñu bari di ko def te suñu borom saa bu ne walaakin aksara naas laa la jee teg sunu borom moo ne walaakin aksara naas lu bari ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu yàlla laa yaskuruuna santuñu yàlla laa yaxlamuuna xamuñu yàlla laa yaqiluuna xelluwuñu seen diggante seen borom ba noppi it nag wa inna kasiran mina naasi la faasixun nee na lu bari ci nit ñi dañoo génn topp waxaat na wa inna kasiran mina naasi bi li xaay rabbim la kaafirun lu bari ci nit ñi dañoo wet ne dañ daje ak seen borom moo tax Serigne Touba daan na fàttali mag ñi lu bari alxuraanul karim ak tëkku yi ci sunu borom tëkku ak digg yi mu ci digg nettali nañu ne mag ñu bari ba ñu koy mujj gis ca jaareem ba mu waxtaanee ñoo ba noppi aaya bii la jàng wan leen gannaaw gisaatuñu ko ba tey muy yaa ayyuhal lazina amanu irka'u wasjudu wax wax bu wa'budu rabbakum la xayra laxalakum tuflixoon guddi gi àjjuma itam nee su masaan dajale mag ñi di leen fàttali seen borom suñu noppee dañuy tiit ba kenn du dem tëri ci sablal ñee dañuy dem fanaanee julli ñee di jàngal xaan ñee yore seen kurus di tudd yàlla ak julli ci Seydina Muhammad ba bët set lu ko waral ki yaakaar mu dox seen digganteeg tiitum ëllëg moo leen tiital tey te ku gëmal ne da nga dajak sunu borom tegu ci siraatu mustaqim jafe la wa inna lasina laa yuminuuna bil aaxirati an siraati la naakibun te gàtt xel mi ngi yem ci sax ci di mooy sunu borom ba yaa ba noppi di yaakaar yërmandeem ndax inna rahmatallahi xaribun minal muhsinin sëriñ bi mi ngi nuy fàttali nu mooy ci xër ci sàkku adduna ak bànneexi adduna sunu borom nee na doomu aadama ci lu ne lay sonn ba mu des sàkku alali adduna laa yas amul insaanu min du'aa'il xayr waaye nee su ko dajalee ba mu bari ba mu war koo dépense moo gën a nay ñëpp ndax la waantum tam di koo na xasaay nee na magasin sunu borom yi yi nga xam ne jeex sax su ma ko joxaloon su ma ko joxoon doomu aadama nee na da cay mooy ngir ragal koo dépassé lu tax lii wa kaana linsaanu xatoora nit dafa ngott sëriñ bi mi ngi sant bu baax ki jiite réew mi te di ko ñaanal suñu borom waaye falal ko yan bi te defal ko ci ndam ndax su amee ndam réew mépp am ndam tawat yi ñu fi daan tawat mu jëm ci dëkk bii ak yoon wa dox diggante Bambey ak Gaawaan toog na nu ak moom fi kanam sëriñ jiili sëriñ jiili fàttali ko ko mu wax ne mu xamal nu ne doxiinu état moo mel noonu waaye yoon wa ma nga ca dinañ ko defar ba màgg ceytu incha allah ko donc ci diglu dégg nañ ko itam benn seen yi jàllee mu wax wax ju am solo mu ne kenn gajewul kenn pertul réew mi moo gaje kon delloo na lépp ci loxoy suñu borom mu waxaat ne mi ngi sant ñi ko woteel waaye dina seeti ñi ko woteelul ba xam lu tax woteel luñu ko te noonu lu kilifa war a doxe kon loolu itam du mat a bàyyi xel la ndax muy ñi ko woteel ak ñi ko woteelul ñëppay fay impôt te sunu impôt rek moo ko yore sañ caa def lu ko neex te duñu tàggu te su koy dépensé du xàmmee impôt ñi ko woteel ak ñi ko woteelul sunu borom nag su la joxee alal ju mu xañ say morom daf laa sant ngay dimbalee sunu borom su la joxee kattan bu mu joxul say nawle daf laa sant ngay baale ak yërëme yonent bi sal sam nee na yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen sunu borom su la jiitalee fi kanam say nawle dafa bëgg nga suufeel sa bopp ba tolloog ñoo ña ca des noonu nag ki gën a tedd ci sayyidina ki gën a tedd ci bindeef yi muy sayyidina Muhammad sallallahu la wax sallam wax fit janaahaka li man ittabaaka minal mu'minin na nga suufeet sa dara ci ñi la topp ndax adduna itam ñu xam ne lépp ci nettali lay mujj kon nag na rafet ndax ñi njëkk na jiite réew mi tey jii ñi nga waxtaane nañu yore woon réew mi te sunu boroom du xeebal kenn ay jëfam lépp lay isaab yomal xiyam te nguur gudul gu sunu borom it bés lay xaar te nguur ku bis dana ñëw nga xam ne yàlla rek ay buur maa ngi jégalu ñëpp in uriidu illal suñu kilifa muy madame la ministre Ndeye Marème Badiane di kenn ci président de la sàll di jigéenam kooku réew mi yëpp ak àdduna xam ko waaye nag di doomu Daaru Salaam ñëw fii ñu ànd ak moom di wax ci turam te li ñuy wax mu gën ñu ko xam fuuf dàqu ko wax kon boog sëriñ bi ñooñu la àndal ñëw nuyu la gannaaw ba ma nuyoo yóbbante nuyoo sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mourides di nuyu sëñ Maam Moor Mbàkke waaye di la nuyu yow sa tur bu baax a baax yow sëñ Cheikh Anta Mbacke di la nuyu maag ñi ma àndal ak kilifa yi ñu fi fekk ku mel ni sëñ Aliou Diaw mi fi jël kàddu waxal këru diine yépp di député à l'Assemblée nationale fekk fi seen beneen doom mu sëñ Mor njaay di suñu wëllëre di suñu mag nekk comme ne conseil économique social environnemental waaye fekk fi sëñ Galoba mi nga xam ne moom laa dendeel nii directeur national nekk suñu wet fekk fi kilifa diine yu mag itam di sëcc suñ Tuuba di sëcc maam Cheikh Anta Mbakke waaye di ràññee ci teewaay bi sëñ Modou Mamoun Mbakke di doomu sëñ Fàllu Mbakke di wax ne nuyu naa kilifa yëpp ak waa Darou Salam yëpp. di leen ndokkeel nag ci bés bu rëy bu mag bii muy bésu feet ju rëy ndax dëkk boo xam ne sëñ Tuubaa ka sancal boppam dem ca géej ga ci épreuve yi maanaam jànkonteeg ay jafe-jafe yu méttee méttee métti pour ñu mën a siggi ëllëg tey jàkkaarloog àdduna ndax coono boobu day ñun la ko sonali woon rek tey ku ñu naw bokk nañ ci sëñ Tuubaa àddina yëpp naw ñu ndax respecté nañu respecté nañu Sénégal fonk suñu diine waaye fonk suñu aada ak suñu cosaan ndax suñu diine ak suñu aada dafa laal di boole nekk benn moo tax àddina yëpp xam ñun lan la ñuy peese tey kon bokk luñ gërëm sëñ Tuubaa Xaadimu sol doyul hmm. ah président de day wane na leen encore ni moom day yoonu murit gi ci la bokk te mu ngi koy toppatoo ji ci bay waram waaye fii ci Daaru Salaam kër maam Cheikh Anta Mbacké ah yéene leen lu ne te mu ngi taxaw seen wet boole ñoo ko yéen pour ñu jàppale leen ci lépp loo leen soxla loolu tax na ba màggal gi taxawee ma woote CRD ànd ak ak yow sëñ Cheikh Anta ak sa njaboot ak service yi ma xam ne ñoom ñépp laa uuf toog sa wet jàppale ci kenn desul li ko dala ca ndox maag courant baag gendarmerie ak police ak sapeur ñoom ñépp ak ñuy taxaw ay fani fan ñu ngi fi ñu yebal leen fi guddeeg bëccëg ñu nekk sa disposition ñu ñoo leen ko sant ñoo leen ko sante jox leen diggal bi waaye loolu lépp son excellence président Macky Sall suñ ko mënee moo ñu ko man loo suñu san santee def ñu ñu déggal ñu di ko defa xol bu leer nag ñoom ñëpp ginnaaw ba ma leen gërëmee def nañ ko suñ digal suñu kilifa président Macky Sall xam na ni fonk na Darou Salaam ñun ñii mu fi yebal tam fonk nañ daaru salaam bu baax a baax a baax a baax ndax tam ah xam naa ne leen bët mënta gis boppam te ñàkkoo xam am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën waaye loolu dalul waa Darou Salaam yéen xam ngeen ko am ngeen ko te xam ngeen ko ndax Euh, wax nañu fi crise de valeur maanaam jikko yu xaw a tumuranke waaye alhamdulilahi rabbi alamin loolu dalu leen ku leen jegeñ waxtaan ak yéen laa muy soog yéen liggéey ak yéen si diir bu gàtt bi ma liggéey ak yéen fonk naa leen ji fonkeel boo xam ne xam naa fu mu tàmbalee waaye xaw ma fu mu yem loolu. gouverneur nee na loolu li mu fonk li mu ko béral fii. nee dina ko béral fii. ndax fonk naa leen te gisuma leen. nee na ndax kat moom gouverneur fonk na Daaru Salaam te gisu leen. te ba may wax ak njabootu maam Cheikh Anta. nee ba may wax njabootu maam Cheikh Anta Mbacke. muy Serigne Cheikh Anta Mbacke mii. nee na muy Anta Mbacke mii di jëwriñ ji. booba ñëwaguma Darou Salaam. nee na booba kat ñëwagul Darou Salaam. tax kii tax ma dégg turu Darou Salaam. nee na ki tax nag mu dégg turu Darou Salaam. ba xam leen bëgg leen te xamu te gisuma leen. nee ba xam leen bëgg leen te gisu leen. su ma leen ko waxee du leen ko gën ndax ab tubaab bu weex furu la. nee na ko ko gëm ndax kooku kat ab tubaab bu weex furu la. na moom daaru salaam la yaakaar. nee na moom tubaab boobu daaru salaam yaakaar. ba ma nekk yow de dina am bés nga yóbbu ma daaru salaam. ba mu wax tubaab ba moom ko dinaa am bés nga yóbbu ma daaru salaam. ma woo ko sëriñ bi wax ko ko. nee na mu woo sëriñ Cheikh Anta mii wax ko ko. ba ñu dajee loolu laa ko njëkk a fàttali. nee ba ñu dajee loolu ko njëkk a fàttali. ne ko yéen day am ngeen ay taalibe ci réew me yoo leen xamul ak yu ma xamul ak yu àdduna xamul. tey xamul. waaye ñi leen fonk wër na àdduna bi nga wërngal képp. kon boog ñu ñi nekk ci réew mi. di doomi réew mi juddoo Sénégal yaro Sénégal fekk fi baax baax fekk ñu fi kon boog loolu suñu chance la kon boog xéewal boobu ñu yàlla defal. ba keneen ku bokkul yenn xeet tax ba ma xam leen soog a ñëw Dar Salaam nee naa la loolu lu ma xam la lu may jàppale bañ koo sàkkane jàppale si président de la république bi nga xam ne xam na loolu ndax xam loolu moo tax mu tënk ñu ni ñépp nañu waar Daaru Salaam lu ñu soxla jàppale leen leen ba ci mbébét yi ñuy mbébét di Bambey gaawaan ceytu ministre Mansour fay bi nga xam ne moo yore développement communautaire ba mu ñëwee Diourbel àdduna ci kon mbokk mën naa wax ne boowu yoon nekk aw jàmbat nee na toq ci noppal gouvernement bi te am naa yaakaar ne boole ñu ñaanilee balay yàgg yoon woowu dina mën a am ndax ku la jox mbékki jox la añ bu la diggee reer nga mën koo gëm sanq day nee naa madame la ministre Ndeye Marème Baya ne ko ñun war nañ sant yàlla bu baax bi ñu yàlla maye ku mel ni le président la République son excellence Macky Sall ndax fañ ko doon xaar ci autoroute Ila Touba xaw nañoo sax réeroo ndax yoon yaa bari waaw ginnaaw ñun ñi nga xam ne suñu kanam lañ ko tabax ñu xaw a réeroo kon ku yeewoon mag ña tey nu ñuy def ku yeewoon mag ña tey ne boo jëlee sa oto jubali tuuba bor dem Dar boo yéexee ka jóge Jurbel ka joge Dakar jiit ko fa boo ko waxoon mag ña tey xëñu ñu weddi ko waaye ci diir bu gàtt président de la République réalisé projet bu rëy bu am solo boobu ba nga xam ne foo jaar ren bu déwénee soo xefee boo moytul réer loolu mooy wane ni réew mi nag mu ngi soppeeku bu baax a baax si bu gaaw a gaaw a gaaw waaye loolu lépp li koy gunge mooy seen ñaan seede yàlla mooy sëriñ bi ginnaaw bi ma leen fësalee téye bu leen président de la ak gouvernement bi téye ak ni mu leen fonke ngeen ñaanal réew mi ci seen barke maam seen barke maam sëñ Tuuba bi nga xam ne daf daan teg alxu tëral alxuraan ci lal bi féetewu suuf ci barke seen maam bi nga xam ne mën ngeen dundal nonom ba juróomi fan ngeen di jàng ay kaami wàcc ay kaamilu alxuraan di ko feetal sëñ Touba ne sëñ Touba day ko ko feetale alxuraan bësëm defal nga ko li mu gën a bëgg ngeen ñaanal réew mi jàmm ji yokk bu baax a baax a baax a baax li ma ne jàmm ji yokku mooy alhamdulilahi rabbi alamin ñu li ñu am ndax yàlla nee na boo santee ma dolli ginnaaw ba ñu sante yàlla ci jàmm jàmm ji mu may ñu ngi ñaan ngeen ñaan jàmm ji yokk ñu sax ci tàkk sax ci jàmm rek ba mu wesaarewu ci àdduna yàlla yokk fi xéewal indi fi koom-koom nawet bii ñu jëm yàlla barkeel ko ba lu ci waay bëgg yàlla may la ko président de la di seen doom ngeen ñaanal ko yàlla mu réussir mission projet yi mu yëkk yépp ak lu mu naat lu mu xalaat yàlla defal ko ci ndam defal ko ci xéewal defal ko ci sutura ba Sénégal la yépp man ci dund ndax moom guddeeg bëccëg xalaatam mooy naataangay Sénégal rek jàmmi Sénégal dalu Sénégal ba sénégalais du naw kenn xanaa kay néew keneen ay jéggaani waaye ñun ñu jéggaani doomu Sénégal lépp lu ñu fàggandiku suñu boroom defal leen ko fii ñu nekk fépp fu ñu nekk itam yàlla defal leen fa jàmm ba deuxième mandat bi lépp lu mu naaloon yàlla dimmali ko mu daldi ko matale loolu ngeen ñaanal ko ko ci loolu laa doon daane la ci turu madame la ministre Ndeye Mbène bañaan suñu kilifa jiite ñu maag service yi ma àndal ma ñëw fekk fi fekk la fi yow mii jëwriñu maam Mor Mbacke ma teg nuyoo boobu ak ziar boobu sa loxo yéen xamal ne président mu leen di bàyyi xel bu dégg bëccëg wasalaamualeykum wa rahmatullah wa taala ñoo ngi jaarale nuyoo bu bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te jaar ci sëriñ Mor Fati xalifa maam Cheikh ak rakkam Serigne Mbacke Anta yàlla nañ fi yàgg te wér ak njabootu borom gaawaan gépp di ko dalee ci njabootu Alaaji Serigne Takko jaar ci njabootu si eh, eh, Ibra Ndar jaar ci njabootu Alaaji Daam Mbacke jaar ci njabootu Serigne Ibra Astu Thiam jaar ci njabootu Serigne Cheikh Thioro jaar ci njabootu Alaaji Sam jaar ci njabootug sëriñ Moustapha Caytu jaar ci njabootug sëriñ euh, Cheikh Cheikh Coro sëriñ Ibrahima su wax naa ko sëriñ Cheikh Coro ñooñ ñëpp sëriñ Abdu Góora ñoom ñëpp seen njaboota yi fi toog ak njabootu maam Cheikh bi jigéen gi soxna Daba Mbàkke ñu ngi ci biir ñoom ñëpp ñu ngi leen di delloo nuyoo ngeen jot li leen seen nuyoo ak seenu cant président de la république rek ne euh, monsieur le gouverneur Gorgui Mbaye mi yàggagu fi mag CRD màggal gi la fi njëkk def kon nag euh, daal amut ñëw def ko ci dëkk bi nga xam ne moom la Serigne Touba njëkk am ci dëkk waaw fi nu toog itam sorewul ak néeg bi Sëriñ Tuubaa dëkkoon bi mu sañcee dëkk bi fi nu toog itam sorewut ak fi sëriñ Sëriñ Falilu mooy juru Sëriñ Maamun wi fi mu ganee àdduna ak jataay bi nu toog sorewut ko waññee daanaka du mat juróom fukki mètre kon nag noo ngi jot li président nuyoo bi ak cant gi ci turu sëriñ Abdul Qadir sëriñ Jili ak sëriñ Abo ak njabootu sëriñ Modou Mamoun gépp ak njabootu Daaru gépp njabootu Daaru gépp yëg nañ sa dikk fi yëg nañ ni nga dikkee waaye ñu del seeral rek ne góor gi mbay jàppale nañu ci eh, màggal gi ci ndigal yoo xam ne jox na ko chef de service yëpp chef de service yëpp ku ci nekk ci région bi rawatina département Mbacké def nga loo mën ak loo mënut euh, maire bi fi nekk Abdou Mbacké Ndaw dugal na ci loxoom euh, Gallo Ba directeur national euh, dugal na ci loxoom tax yàgg na ci yàgg na fi def na ci lim ci war a def lépp ni président def yónnee itam noonu la mboolem euh, parti politique yi ci réew mi ñoom ñëpp teew nañ fi noonu la ñu def euh, président Ablaye Wade yabal na fi délégation bu rëy boo xam ne suñ Cheikh Bara Dolly moo ko jiite ñëw yandu fi euh, Madické Niang ñëw na yandu fi moo ak ñu bëree bëri Cheikh Tidiane fi la yandu démb ba guddee fi kon ñi tudd ak ñi tudd ñëpp gis nañ seenu taxawaay ak seenu teewaay sëriñ baa ngi leen di sant bu baax njaboot gaa ngi leen di sant bu baax ma teg ci seex si nga xam ne bi sëriñ tubaab di sañ ci Daaru Salaam seeni maam ñoo fi nekkoon di gor rawatina sëti si si maam Cheikh Ibrahima Fall yi toolub Cheikh Ibrahima Fall baa ngi woon nii dëkk bi dëkk bi ñu moo ko gor moo ko ak maam yi maam yi ñi toog nii kon nag ñoom itam la seen maam nekkoon bi fi Serigne Touba nekkee an ñu ànd ak Serigne Touba ànd ak Serigne Touba boole leen ak maam Cheikh boobu yéen ñëpp xam ngeen ko monsieur le gouverneur xëy na yow muy gan Serigne Touba bi mu sancee dëkk bi euh, euh, euh, mille neuf cent mille huit cent 1884 ba 1887 mu sañ ci Touba bi muy dem Touba dafa jël dëkk bi rafatale ko maam Cheikh Anta taalib yi fi nekkoon mu ne maam Cheikh waññal ba xam ñaataa fi nekk mu ne ko juróom-ñeent fukk ak ñeent deng fi ak man mu ne ko boole naa juróom-ñeent ak yow ak dëkk bi jébbal la ko loolu moo jotale maam Cheikh ci dëkk bi euh, Eh, kon boo fi njëkkee boo fi njëkkee ñëw teg sa tànk ñu nommé la ci région bi eh, ñu président yebal madame la ministre Ndeye Marème Badiane mu mu dëkk ci dëkk bi waaye mu jox la kàddu gi nga njëkk fi yëkkatiwaat kàddu ci cérémonie religieuse eh, suy boo nga rafet njort ndax mel na ni Sëñ tubaab dëkk bi mu njëkk a sañc barkeel na ginnaaw bi li ginnaaw bi yenn dëkk yi sañc ko waaye ñi fa dëkk ñëpp ci ci ci ndigalam la wéy eh, kon nag da doon dox di sanc waaye daa mujj suñu borom di ko sancal loolu mooy ngërëmul yàlla eh, seex si nga xam ne ñoom la seen maam doon gor ñoom dama leen a beral ak cant rek ndax màggal ak dajale at yi lépp liggéey rek te liggéey boobu bu ñëwee ñoom nun taalibe yi nun rek noo koy def waaye nag seex si ñoo ko gën a dëgëral eh, ñi la ko dale ci sëñ Mor Fati Touré ma ci magoon njabootam tudde woon nañ ko bis bi njabootu Alaaji Ibrahima ja njabootu sëñ Mat Njaay Jóob moom di architecte di koo xam ne kii intellectuel la bu ko amoon xel Sëriñ Tuubaa boole woon ko ak maam Cheikh Anta moo waral mu mën a dem ànd ak maam Cheikh dem ba Gabon mu mën a dessiner eh, kër gi fi Sëriñ Tuubaa nekkoon ci Gabon ruq yaag ruqaar mu génn ko ci ci kay njabootam taxaw nañ bu baax ci liggéey bi loolu duma ci dellusiwaat joxoon naa ci ndigal Sëriñ Xaadim Mbàkke wax na ko wax euh, waa kër Alaaji ak ñëpp euh, kon euh, du ma dellu ci foofu xanaa li may wax rek mooy ñu ñaanal taalibe yi nga xam ne màggal gi fu mu àgg ñoo ko fa àggale démb boo ñëwee ci dëkk bi doo fi xaj te ëpp na démb juróomi fan yëpp juróomi fan yëpp da yendoo recevoir ay daayira ak di recevoir ay délégation te ba fi mu nekk am na ci ñoo xam ne ñu nuyooguñ sax kon ñëpp ñëw nañ kenn desut hmm? léegi Serigne Aliou Dia wax na léegi kàddu yu rafet wax na léegi kàddu yu rafet rafet waaye itam wax na kàddu yi am njariñ euh, Serigne tubaab li mu sose yoon wi dafa wax ne yoon wi yoon wi nga xam ne mooy ngir mi ma jaar mooy ngir mi ma jaar jëm ci rasulullahi ku ci bëgg a ànd ak man na nga xam ne ay kanu yi mooy xam-xam moo ci jiitu liggéey door ce tegu jàmm yàlla door cee tegu muy ñetti piliers yoo xam ne ñetti kanu yoo xam ne yu dëgër la yoo xam ne yi ci loolu la bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg nu jaar ci xam-xam bi sunu borom dafa wax ne taarifuni qabla an taabuduni wa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni da ngeen may xam bala ngeen may jaamu bu ngeen ma xamut nu ngeen may jaamoo kon nag xam-xam bi sunu borom dellu ko feeñalaat ci bu bi mu bi muy yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa a ba ko Seydina Jibril fekkee ci xunti ma mu nekkoon iqra la ko njëkk a wax iqra jàngal bala nga am xam-xam da ngay jàng kon xam-xam moo moo ci jiitu liggéey topp ci liggéey bi nag liggéey booba ne rek ginnaaw jëf yi ngay jëf ci jaamu yàlla gi diggante julleeg yooyu yépp waaye liggéey nag wax boo ko mën rek am na ci ñoo xam ne ñu ci mbay mooy seen liggéey kon suñ borom mu ne su ko takk ci ab nawet ni si ni si àll yee waxee nawet bi suñ suñ suñ suñ subaa suñ Cheikh Abdou Lahad waxoon na ko ne nawet bu teel ti xéewal xéewal a ko gën kon nañ ñaan suñu borom rek xéewal saa bu tawee kenn ku ci ne la nga am ji jiw na ko ji ñu ñaan suñu borom mu barkeel ko te nawet bi tam teel nawet bi tam teel seex si toog nii sëñ Ablaye Ndiaye Ngaye Xem sëriñ Gora Bakhoum sëriñ Aliou Faye sëriñ Mortine se ñoom ñëpp seen i ngi ni toog jàpp ci bis bi jàpp ko xam ne ci niñ ko war a jàppe népp def nañ ko dara lu ñu bàyyi amut li nga xam ne moom laa waxoon ci université bi itam te mu ñor ma lool ñëpp góorgóorlu nañ ci bu baax ndax Sëriñ Tuubaa dafa mel ni ni ko jumaa ji ñore noonu la ko université bi ñore woon waaye nag e, e, e, jumaa ji daf ko daan tudd waaye université bi daf cee jëfandikoo werbu passé te koy jëfandikoo fi'lu maadi muy lu yéeme koo xam ne sunu borom tabaxal na ma tabaxal na ma jàngukaay bu rëy rëy muy uni muy ab université xam ne xeeti xam-xam yépp lañ fay jàng eh, kon nag weer bu bi mu jëfandikoo moo mel ni mooy wane ne Sëriñ Tuubaa jumaa ji mu tabax ñi ko war a jàngale ci daara ju mag gi lañ war a génne waaye bu tabaxee jumaa ji njëkkee noppi ñu xam ne kon daara ji farata la ndax jumaa ji mënut a ñàkk ku koy taxaw te ñi koy taxaw dañoo war a am formation bu dëgër di xam-xam bu dëgër moo tax euh, université bi di farata joo xam ne sëriñ bi xamoon fàggu na ko suñ borom defaral ko ba noppi moo taxoon ma woote ko ne leen dama bëgg ñun ñëpp nu ànd ak suñ sëñ suñ mun Muntaxaa jàpp ci liggéey boobu ba ba muy àgg jàpp ci liggéey bi ba muy àgg Euh, waaye loolu yëpp sant naa taalibe yépp ñoom ñëpp def nañ ko ni mu ko bëggee woon te itam bàyyiwuñu xam naa ne euh, ñu ngi ci ku ku ñëw rek ne la damay tàmbali waaye maa ngi ci waajtaay kon nag euh, jërë ngeen jëf yàlla suñ yàlla suñu borom yi yéwénal seen mbir yëpp ñu nga xam ne ñooy waa administration bi madame Badiane ma seereel la ko rek gouverneur wax na ko ba noppi. de service yi ñoom ñëpp teew nañ def kenn la nga war a def nga def ko ñoo ngi leen di sant ñoom ñëpp euh, presse bi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp jataay bi dafa yàgg yàgg na lool waaye daal ngeen xam ne euh, jataay bi li ci nekk ci baatin noo ngi ñaan mu sotti ko ci jataay bi sotti ko ci ku teew ci jataay bi sotti ko ci képp koo xam ne tase nga ak génn nga ci jotaay bi taseeg moom wala muy mbokk mu aju ci yow suñ borom boole ko ci ñaan gi may ñaan mooy sëriñ Touba dëkk bii la san njëkk a sanc tudde ko Daaru Salaam ñaan sunu borom ne ko maa ngi lay ñaan duyeer yi xol yu ak karimu junna anit laayi ni wadu yoral na sama kër yi may may sanc maa ngi lay ñaan bu fa seytaane am bunt te bu ëllëgee na nan nangu fa defal suñu këri àjjana sax far nu nu dekkee fa euh, bi mu liggéey ci géej gi at yi mu liggéey ak li mu sonn lépp nga xam lu dul jël bakkan def nañ ko ko bi mu ñëwee fii ci Daaru Salaam gi la wàccaat euh, fi njëkk a amee mbég moo xam ne ci wax dëgg jaatu na ci doomu aadama mu mu am lu muy bëgg ak lu mu loo xam ne léeg-léeg du ko neex waaye Sëriñ Tuubaa dafa wax ne man sunu borom def defal ma bànneex ak mu defal ma lu mel lu safaanoo ak bànneex xàmmewuma ko moo tax ba rus na ma jàkkaarloog sunu borom di ko ñaan loo xam ne mayuma ko ba noppi muy ndax loo xam ne suñu borom mayu ko rek xamal ne dafa dul dafa dul coobareem suñu borom nag kenn du ko forcé ci tey nga def nangam moo tax sëriñ bi nee na la ma def bu naqari ma maa ngi ko ciy sant mu niru aw naqar ban naqari nit ñi maa ngi ko ciy sant bu baax te xamal nit ñi man loolu mbég la mbég la ci man euh, la ma defal muy bànneex maa ngi ko ci sant bu baax te xamal te ko xamal ne ko yéeyoo wuma ko moom ëpp na euh, di ma di ma defal bànneex ab ay ab jaamam rek la kon Sëriñ Tuubaa moom noonu la jàppe woon mbir mi amutoon lu koy naqari amutoon lu koy neex waaye nag bis bi mu ñibbisee fii nag maam Cheikh Anta ne ko man day nit rek la yow bis bi nga xamee ne ci nga ci lañu ñu la teg ab coona moom nga ñaan diggal jox nu ndigal mu ne bu ñëwatee nañ la ci sant la sa borom mi la boole nattu bii jox la lim la ci jox xanaa bis bii di bisu mbégte suñ borom def moom mi la yóbboon ci natt bi nga dellusi wàcc daaru salaam xanaa sañ naa di di ñëwee ma di ko màggal mu ne ko jox nañ la ci ndigal te danañ la ci jàppale kon teraanga ji nga xam ne eh, suñ borom dana ko séddale ci bis bi fii yàlla na ko tasaare ci mbooloom yépp yàlla na ko tasaare ci mbooloom yépp li nga xam ne moo fi wàcc itam ndax mbég moom may wax mooy fii la sëñ njëkk a toogee ci àddunaam ak njabootam wër ko sëñ Modou Moustapha bind kaamil sëñ Fallou bind kaamil sëriñ Bachirou toog ñi nga xam ne ñooy rakkam yépp la ko la ko dale ci maam Mor Diarra ñoom ñëpp ñu toog maam Cheikh waaye li ko jiitu lépp sëñ Tuubaa toogul fenn gis menn bokkam ci kaso rek la nekk kaso la nekk dundam gépp ba 1927 gi mu fi jóge résidence surveillée la nekk ku musta am liberté nag bis bi nga benn bis bi nga am liberté sa sa mbooloo sa sa bokk yépp ñëw seet si ndax damay wax ne bokkam yépp ñëw nañ fekk ko fi bokki jullitam yépp fekk nañ ko fi ay noonam it fekk nañ ko fi moo taxoon dëkk bi ay bis googu yépp day fees dell ndax noon yi li leen indi mooy ñëw seet si ba xam loxo andi manqué wutub loxo wala ndax jëmm jee wala déet dañ leen di nax ndax gëmuñu ni Sëñ Tuubaa mën naa ñibbisi kon nag bis boobu mu ñibbisi woon maam Cheikh Anta di ko bégal moom lañ doon màggal ngeen ñëw teew si ci ku ci teew yàlla na nga ànd ak mbég te na naqar ci topp waaw président Macky Sall bi nga xam ne moo leen yebal itam na koy sant bu baax ci yëg gi mu yëg Daaru Salaam ba lu mu xew lu mu xew la rek ay ndawam ñëw ak ni ñu war a jikkee euh, tey nag danoo gën a bëgg bi nga xamee ne soxna Marème Badiane mi mu fi yebal dafa dëkk ci dëkk bi waaw gouverneur bi mu fi yebal itam premier CRDM euh, daanaka moo organisé magal gi kon nag noo koy sant bu baax a baax ci taxawaayam ci ñaanal euh, wala reem xaritam Mouhamad bun Abdoulaye Dione mu wér ak jàmm te ñibbisi ak jàmm di ñaanal réew mi yëpp di ñaanal ñi nekk bitim réew di bokk ci njaboot gi wala màggal gi ñu xam ko seen jëf yëpp ak seen itte yëpp mooy màggal gi jëfe nañ ko jëfin woo xam ne wi jëfin wu rafet rafet la réew mu nekk Amérique France Europe yëpp Afrique yëpp fu nekk ay nit bàyyi ko nañ fa di dekkan délégation ay daayira ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax te ñaan suñu borom dolli seeni xéewal te may leenu wér te may leen wërsëg bu yaatu wuñ dundal seenu njaboot wërsëg wu yaatu wuñ ñu mën a joxe àddiya mën cee jaamu yàlla euh, kon képp ku fi dugg booy génn ci mbaar mi yàlla la suñu borom teqalee ki bàkkaar ñi nga xam ne Sëriñ Moodu Maamun mi njëkk a organisé gi Sëriñ Tuubaa daf ko ne woon amoo bàkkaar ñàkk bàkkaaram googee nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko moo ko waxoon yàlla na ko wàll mboolem ku teew ci jataay bi boo génnee koo dajal yàlla na ko ca suñu borom xiiwal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëfati Mbàkke ñu tàllal kon.